est-ce que am na lu mu. mais xam nga euh, ci développement. nga wax dafa am lu ñuy wax mal développement xam nga luy mal développement. Hmm. via Diamniadio on a ay bâtiment yu rafet. on a l'hôtel Radisson. on a euh, stade bi gën a yaañ ci Afrique. mais à côté ndaamaraas la ñuy jaay pour lekk. à côté jaay ma Clémentine ngay dégg. y a pas les sociaux de base. parce que léegi si critère de développement on regarde indice de développement humain ama ñii dinañ ñëw seen pro il te parle de capital humain ça veut dañu war a retourner ci priorité nit yi j'ai pas dit et je ne dirai pas que Macky Sall liggéeyul doo ko mës a dégg moom bi mu fi nekk maa ngi gis lu mu liggéey keroog te Sénat ah BRT bi hmm. sa moto ba préfecture Guédiawaye ma gaar ko yëg ci BRT bi fay téeméer c'est visible mm -hmm. je ne pas que liggéeyul peut-être mhm. vous n'avez pas compris mon propos j'ai dit mën nga leb nga dugal exemple bi mu la jox dafa dafa simple indil boroom xam-xam bu la neex ci àdduna est-ce que defar te ci distance su trente cinq kilomètres ak xaalis boobu nga jëloon nga xam ni mën nga cee defar ak sept cent milliards li ma lay wax nii waxuma ko ab technicien moo ko wax su ngeen bëggee. Mhm. ma yóbbu leen ba këram. technicien aéronautique boo xam ni. fii la nekkoon chemin de fer du Sénégal fan la mujjee bitim réew France Alstom. c'est maanaam nga defaroon raay bi. yaatal ko. Mhm. Kaolack fi mu féete c'est au centre du Sénégal. Mhm. à partir de Kaolack c'est-à-dire que celui man tey sam papa fu mu dëkk. Matam sëñ Tuubaa moom hmm. mais tey bu fekkoon mun nañu jël train nga xam ne yoonu ndar bi yëpp di nga mën a dugg di nga mën a dugg ci raay bi nest pas Guèye hmm. waaw à partir de foofu nga mën a relier zone yi nga xamante ni egg fa problème la hmm. ñu désenclavé moo ma gënaloon ma jël xaalis boobu et effectivement terre bi c'était fait juste pour sauver une entreprise française Alstom il faut nga comprendre qu'aujourd'hui dans le monde européens yi mënatuñoo jaay yu mel noonu parce que seen dëkki am na fa ba pare. Mhm. ils sont à la recherche de nouveaux marchés. man ci sens boobu laa waxee est-ce que vous m'avez compris maintenant. maintenant je vais venir dans l'analyse politique fi Guèye dugg. Mhm. on doit se poser la question qu'est-ce qui fait courir Macky Sall. c'est une question qui revient. Macky est sorti par la porte. mais il veut rentrer par la fenêtre. est-ce qu'il va réussir à rentrer par la fenêtre. sànq nga laaj benn laaj bu am solo est-ce que wutiwul leneen. ci ginnaaw immunité parlementaire olof Ndiaye nee na ku iñaane sa dono sa deewin ñaaw. Macky musul xalaata dem. bizarrement ñu nañ musul bëgg numéro 2. oui léegi looloo ko rey. et amu ko. la bi mu defee Amadou Ba candidat dafa def congrès boobu man maa ngi fi toog di seetlu di wax ma ne leen. kii nan lay defee Amadou Ba candidat ba pare dem jiite parti bi pour la l'appareil politique ñaari option la amoon. su Amadou Ba gañe woon mu ne ko man maa yore appareil bi comme ça. mu mën a pëtaxlu mën a ñëw bokkaat ci game bi. schéma am c'était un peu Poutine sortir ci mandat boobu kii nekk genre intérimaire moom mu mën a ñëwaat. bu loolu amulee. Mhm. mu mën a toog maintenant xam nga lu muy lijjanti. première chose partem dafa tas tasaaroo bi mu jëlee Amadou Ba def ko candidat Aly Ngouille Ndiaye dem na Mame booy Diao dem na raxam bu mu bokkal ndey ak Baye Aliou Sall dem na ah, ak ñeneen ak ñeneen dem donc partem mu ngi wàññeeku léegi si diggante bi Macky faut utiliser son image parce que loo ko contre contre am na ay nit yu mu àndal mu jéem a téye son électorat comprendre nga. Mhm. pour sauver li ko dese. Ah. mais beneen bi pour se sauver. parce que ñii ci seen kàddu yi ngay wax menace luñ ko mën a toppee moom mooy haute cour haute trahison te pour ñu def ko haute trahison il faut ñu mën a installer haute cour de justice. Mhm. pour ñu mën a installer haute cour de justice. il faut ñu am trois cinquièmes de l' assemblée ça veut dire quatre vingt dix neuf députés donc là il va essayer d' sa résistance et c' tout à fait politique. beneen bi mhm. c'est un du japonais mhm. am na droit ñëw Sénégal am na droit mu nekk Canada moo tax bi mu dugalee dossier am ñu bindal ko ko xam nga nit mën nga am droit mun mhm. nga renoncer aussi ce droit pour yeneen raison donc moo tax conseil constitutionnel waxu ci DG wax ci parce que il est bel et bien sénégalais maintenant le vrai débat mooy est-ce que en moins de six mois là où Macky a échoué est-ce que il peut redorer son blason. Est-ce qu'il peut se réconcilier avec les Sénégalais six mois après tout ce qui s'est passé Tu as parlé de bilan matériel, mais il faudra mettre à côté son bilan immatériel. dëkk bu mel ni li doon jàpp tëj matin midi soir <laughs> képp ku nekk si adversaire nga tëj ko mu nekk ci fitna ay bakkan rot ci bilan immatériel boobu dig diggal bi taxoon Sénégalais Macky nekkoon cinquante pour cent en deux mille 2024 mu ngemb mbërëm ñëw kooku am 34 pour cent kon wàcc na est-ce que si bii nii Macky dina amaat 34 je ne pense pas parce que mu ngemboon. Mhm. yóbbaale na ngemb la kon 34 yi wàññeeku na. partem xaajaloo na benn boo ko yaakaar ña ko doon jàppale décret bi newatu fa dem nañ. qu'est-ce qui fait courir Macky Macky nga xam ni am nga maire de Fatick. nekk DG Petrosen ministre de l' et des mines ministre des collectivités territoriales mm-hmm. ministre de l' intérieur mm-hmm. premier ministre président assemblée nationale président de la république maanaam Macky a occupé huit postes poste yi mu occupé bi ci gën a tuuti salaire <laughs> cinq millions la mooy DG Petrosen nekk na maire de Fatick encore qu'est-ce qui fait courir Macky pour wut post de je ne pense pas que mu soxla poste parce que Macky bu juumee ba dugg assemblée dina mu wax ko boppam donc son schéma c'est fexe dooleel li ko dese maintenant c'est son droit mais man pour man il devrait prendre du recul. c'est ça nekk na fi vingt ans. bi mu démissionné kenn déggatul Senghor académie la dem di bind ay poésie san pour autant mu def de l'ingérence dans la chose politique au Sénégal c'était Senghor. après Abdou Diouf quand il vient à Dakar il rase les murs doo xam sax na Abdou Diouf dugg na fi wala génn na fi Ablaye Wade c'était exceptionnel parce que Macky dans sa démarche ci ni mu dikkee ak ni mu jëflanteeg sénégalais moo taxoon nit ñi naan góor gi namm nañ la léegi est-ce que Macky sénégalais namm nañ ko la véritable question mooy loolu mais beneen bi toog pour man gisagu ba lu ko teree mën a dugg Sénégal parce bu fekkee dañu su sukkandiku rek si actuellement sur la réalité gis ma luñ ko toppee wala luñ ko daane kenn mënu ko teree mu ñëw Sénégal maintenant c'est un autre jeu parce que dans mon analyse politique jàppal ni élection yi passé ñaari mbëri ñu doon xaar bokkuñu. Macky warul woon bokk parce que amul licence Sonko mi amoon licence Macky da koo bëggoon yóbbaale. Macky ngemb mbërëm dugal ko ci laang gi Sonko ngemb mbërëm dugal ko ci laang gi mbëru Sonko yenu mbëru Macky ba ci kaw dóor ci suuf maqal ko suuf si léegi Macky nag nee na bii paa moom mooy ngemb pour jàkkaarloo ak Sonko léegi nag est-ce que mën na koo ndengeeñ wala mu koy jéem a caxabal wala mu koy caxabal ndax Sonko da koy mbon mooy woy bi Youssou Ndour woyoon làmb ji fi amoon daaw ba bi la ñuy xaar donc Macky est-ce qu'il vient pour prendre sa revanche wala est-ce qu'il vient pour mettre les bâtons dans les roues de, de Ousmane Sonko et de ses amis. Parce que dès l'instant qu'il n'a jamais quitté les fonctions de son parti, qu'il a démissionné des autres fonctions d'organisation qui ne sont pas compatibles avec euh, des fonctions politiques, libre à lui de venir. Maintenant, ça, ça va nous permettre d'avoir euh, beneen niveau dans le combat cette fois-ci est-ce que sénégalais ils se sont réconciliés ak Macky Sall. Mm que baal nañ fi jot a def d'accord euh, Guèye am na lu euh, Cheikh Omar wax lu am solo mooy mu Macky Sall na reculer un peu loolu la ngeen soxla woon maanaam mu toog ci ruqam def ni président yi fi jàll mais est que bu toogoon ci ruqam dina ko arranger parce que ñu ngi wax haute cour de justice mën nañu xëy euh, mu perte ensemble am toog ci ruqam ñu ne ko taxawal nañ haute cour de justice fexe ba indiwaat ko Sénégal atte ko moom ak i jëwriñam est-ce que dawut loolu. lii wér ba mooy kuy xalaate noonu la nga def jubul. la nga def baaxul. te moom nañu ko yombalal rek. nañu ko yombal ñëw battre campagne xam nga jàpp na fi leader politique tëj ko ci karam ci këram pendant des jours moom nañu ko yombalal rek c'est-à-dire dañ koy delloo la pièce de samoné